Sénégal gépp voilà mi ngi noonu tey euh, ñu euh, nga ànd ak gi nga xam ne mooy Cheikh Bara Ndiaye def gis euh, tey nekk ñetteelu fan bi sénégalais yi wala Ousmane Sonko bëgg mu daal di dem foofu léegi nga xam ne moom moo di ci assemblée nationale en tout cas tey lan mooy message bi nga xam ne encore une fois yaa ngi koy bëgg a waxaat askanu Sénégal. waaw askanu Sénégal li ma leen wax mooy ak élite patriotique nañu ko defe woon na woon fa woon na woon ak Cheikh Bara tey nag mu am leneen lu ci dolliku mooy Cheikh Bara Ndiaye. notre honorable futur député ñu fas yéene koo yóbbu assemblée mu ànd koog ñi nga xam ne ñoom la Ousmane Sonko tànn ñuy woo Sénégal ñu jox ñu majorité confortable majorité utile suñu wax majorité utile mooy y a un volonté manifeste bu opposition bi pour faire mal pour dissoudre le gouvernement wax nañ ko waxaat ko Barthélémy Dias waxaat na ko bu yàggut ne maanaam ñoom man dañ mën nañoo bloqué wala am nañ yéenay bloqué avion du naaw oto du dox intention boobu ku la ko wax mooy fas yéene defante dafa am benn contrat loo xam ne moo ñu lien parce que dafa am un lien particulier boo xam ne moo dox ci diggante Ousmane Sonko ak jeunesse Sénégal wala population Sénégal parce que ñëpp a ko bëgg muy gone yi ak mag ñi te lépp loo xam ne mu ngi ñu ko wanoon ci wàllu ngor ba léegi mu ngi koy fësal di ko wan mu tànnal ñu tànn ay maire tànnoon ay député tànn président de la république boo xam ne daf ko mate gis nga barki Dembo Ndiaye bi nga xamee ne président Diomaye Dia Bassirou Diomaye Diakhar Faye dem na Arabie Saoudi ci li nga xam ne moom lañ daan gisee Afrique moo xam ay njiiti Afrique wala ay njiiti yeneen dëkk mooy bëgg ñu gëmloo ñu ñun ñun suñu jeunesse bi ñu am population bu ñu am problème la ci ñun te alors que loolu solution la da ngay xool Inde wala nga wax Siin kenn ku ci nekk ëppal na un milliard de personnes te un milliard de personnes boobu un milliard cinq cent kii un milliard quatre cent un milliard quatre cent wu Siin un milliard quatre cent ñoom gisuñ ko comme problème mais dañ ko gis comme avantage gis nga ko dafa gënoon a tax danañ mën a jaayante seen biir ñoom rek dèjà marché lañu ba pare tayaluñu yoo joxuñu kon bu ñu ñëwee Sénégal Afrique fii mu toll nga xam ne mataguñu sax milion millions d'habitants te nga xam ne futur fii ak 2050 ñu mën ñu xool ay plus d'un milliard et quelque loolu bu fekkee nañ ko am solution la moom la président Diomaye wax réew moo xam ne wala continent boo xam ne am na bépp matière premier Sénégal noonu la amee Mexique bokk ko Guinée ak ñeneen ak ñeneen noonu la amee lithium bokk ko yeneen i dëkk yeneen i dëkk or noonu la fi amee diamant noonu la fi amee feer noonu la fi amee surtout fer ak li nga xam ne moom la gën a man locomotive yi nga xam ne tey moo gën a mën a développé àdduna àdduna bi gën a mën a wàcce prix loolu boo koy wax yaa ngi wax bateau yaa ngi wax train waxuma nag train comme TER boo xam ne ay ay xaalis boo xam ne dafay nekk fii li nga ciy def mooy ëpp yor nañ li mu lay jural non train boo xam ne ay ligne ferroviaire yoo xam ne ñu def ko ba nga xam ne dafay lëkkale Sénégal mais dafay lëkkale Afrique ñu lay waxaat leneen la autoroute l'eau mooy dañ nga xam ne dañuy transformer dañuy bay am fruit fii yoo xam ne dañ fi ñore mais dootuñ ko yóbbu bitim réew dañ koy transformer ba mu nekk produi produit fini ku bëgg jënd ku bëggul ba en tout cas ne serait-ce que ñu bàyyil ñu ko fi dañ koy mën a consommer loolu nag buñ la ci woowee dañoo xam fi ñuy jëm dañoo jël Sénégal àpp ko fii ak deux mille cinquante daal di ñëw ne fii ak deux mille trent quatre nga xam ne mooy master class fii ak deux mille vingt neuf nga xam ne mooy programme gouvernemental te loolu ñu fisee la ko xam fi ñu war a mën a jëm loolu mooy li nga xam ne moom la Ousmane Sonko woote ci dëkk bi. mu nekk lu am solo mais naka nga euh, gisee euh, ñetti fan jëm ñeenti fan yi nga xam ne en tout cas euh, defagun nañu ko ci campagne bi ak Sénégalais parce que ñu bëri jàpp nañu ni Sénégalais yi bu weesoo élection présidentielle yeneen élection yi xëy na. Euh, nañu ko war a jëlee dëgg-dëgg duñ ko jële noonu. no non non non bii yoon dana weesu xoolal Ousmane Sonko fi muy dem dama lay jox exemple rek mooy da ngay gis ne nit ku yor njariñ la di ko jox nit ñi xoolal nit ñi lu ma guddi guddi dañuy xaar Ousmane Sonko lan lañ koy xaar waxuma rek taxawaayam parce que il est jantal yàllaa ko may buy dox sax boo ndewul donte ay tànkam moo dëng rek mais boo ndewul jaayu leen affaire yàllaa ñu may moo tax mais ànd ak loolu yëpp da ngay gis ne da ngay gis ne fi nit ñi daan xool. man tey man sama yëg laay wax ah su ma daan xool maam Cheikh Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum man du ma Tidiane Murid laa mais njëriñ li ma sëñ Cheikh daan jox ci wàllu àdduna ci wàllu développement ci wàllu xam sa bopp ci wàllu bëgg sa bopp tey jii damay gis ne Ousmane Sonko mooy nekk di incarner loolu xoolal Ousmane Sonko foofu mu toogee di wax bu toogee nit ñi di wax da ngay gis ñëpp moom la ñuy xaar discours am bu commencé ñëpp di ko xerawlu mooy li nga xam ne moom la Abdoulaye Cissé wax barki démb Cissé Cissé la ku ñàkk ki ñaan mooy li mu wax ne Ousmane Sonko 21 jours yi doyu ko parce que chaque jour maanaam temps am daf koy mën a remplir. li mu war a campagne. voilà naka nga gisee attaques yi nga xam ni moom lañ ko def foofu lañ ca Koungheul est ce que nekkul itam di jouer ci sécurité am. non non loolu. Euh, il représente instant bi une institution. xam nga Ousmane Sonko bi muy doon ñun képp nga xam ne amuñu saisine bu mën a topp ci ñun maanaam yoruñu entre en tant que premier ministre booba sax pour nga atteindre ko c' tout un problème. ndegam boobu lañ leen faalewut waxantuma laag Ousmane Sonko ci sécurité la nekk loolu damay dalal xelul ñëpp te li xew démb dootul xewat xam nga ñoo xam ne ñëw nañ ak seen pick-up ak seen ay scooter yow yaa attaqué ñu topp la nga dew ba fa ngay def. ah mais mais mais gis nañu la fa parce que Malick Gakou dèjà ñi wax ni loxo yi moom moo damm deret xaw fa tuur loolu rek dèjà jéye la boo xam ni euh, mën na tiital ku ne. non mën na tiital kay mais loolu ébranlé wuñu xoolal fi ñu jaar ku fa jaar taq ban ñun lan lañ war a ragal li ñu waroon a ragal ci àdduna nekkatu fi te laa peur doit changer de camp te dafay changer de camp loolu mooy li nga xam ne moo fi nekk lan moo leen tiital mooy discours bi dañu dem a dem ba cuuraayu dëmm li mënatuñ koo supporter loolu démb ñu jëfuur rek nga fay gis xam nga ne bu jëfuuree mënatoo koo téye loolu mooy wax ci mais xam nga attaqué caravane Ousmane ko pour man ak ndof la loolu mooy wax ci mais li ci am solo mooy discours son discours jaay na ko peuple bi peuple bi adhéré nañ loolu moo ci am solo ak loo mën a wax dañuy defar dëkk bi parce que li gënoon a të mooy da nga fi mën a nekk mais population bu la déggal nga xam ne tey boo leen xëyoon woo avant ñuy def loolu lan lañ njëkk a def bàyyi leen gars yi dem bay may leen deret don de soi nit ñi wane ko ci digganteem ak Ousmane surtout population jeunesse bu Sénégal lan moo fi des nañu xaar ensemble bi ñu jox ñu ko ñu voté un budget qui nous propre doxal deux ans laa la may Sénégal ba kawe njott yëpp. d'accord mais mais gis nañu Bougane Gueye Dany moom itam en tout cas atte nañu ko ba euh, dóor ko benn mois avec sursis mu war a génn battre campagne moom itam parce que ñu bari ñu ngi doon sàkk lu ni mel. waaw mooy li ko patriote yëpp doon ñaanal mooy ñaanal ko mu gaaw génn ñëw campagne parce que nag lay moom kenn du ko fi ame foo jaar campagne kan la Bougane di tiital sàmm sa kàddu xam nga ñaata lañ 16 département ci 54. 54 départements maanaam Sénégal 46 non 46 départements la Sénégal la yor boo ci boolee diaspora bi da ngay dem 54 départements te ñoom 16 lañ ci dem Macky Sall dem ci 36 Amadou moo moo nekkoon 38 moo nekkoon 48 maintenant 47 la ñun on est sur 54 yëpp ñi ngi ci kon bokkuñu est-ce que yaa ngi xool voyé ngay dem fooy dem lu village reculer reculer nga gis bu Ousmane ñëwee ñu toog di ko xaar xoolal heure bi Ousmane di génn suy sillonné xeebul benn village ak lu village sori sori lu dëkk sori sori da ko ciy xaj-xajal bu noppee def kii bi deux jours pare daal di def la grande meeting ñëpp ñëw mu jox leen xam-xam gaa yi jël loolu mooy li nga xam ne moo am solo te loolu maanaam dafa révolutionné politique bu Sénégal tey li nga daan toppee star bi li nga daan toppee ki daan wax ñu lay dëgg ak ku mu mën a doon Ousmane Sonko politicien dafa capitaliser lépp tey ni Ablaye Wade meloon étant politicien tey daf ko ko am ba kawe njottam te loolu la Sénégal yàggoon a xool mooy un leader bu mat li mu doon. te wane na ko fépp xam nga li gën a li gën a jafe ci doomu aadama mooy désintéressement bu fekkee ne politicien nguur rek ko ko yitteel est-ce que Ousmane Sonko nguur rek ko ko yitteel su doon nguur rek ko yitteel kon sax du réussir lii mais laa bi mu demee ba ñu gàllankoor ko. dafa joxoñ joomaay moo tax sénégalais yi tey ñu ne ko doo ñu gën a gore aussi simple ko ça li xew mooy Ousmane doo ñu gën a gore non non du ñu gën a gore Sabaar Ndiaye tey bi waral caravane bi bu mel ñu que ñi koy wax bari ne am na apport bu am solo boo xam ne indi na ko ci langue politique bi non bien sûr mais nag na gars yi xam yëpp rek ne Cheikh Bara Ndiaye su doon APR lay évoluer tey doo ko xam wax ji wax ji li ñuy défendre muy Saa Wolofoo Cheikh Bara Ndiaye oo Cheikh Ousmane Touré oo li ñuy défendre mooy dëgg rek te dëgg nag lu ray mbuum dee ci ki nga xam ne moo woote lépp désintéressé wu bu dul woon ak moom maanaam ñëpp mën nañoo fës waaye nag Ousmane moom mooy number one apport bu rëy nag la Cheikh baara di indi en tant que Cheikh Bara parce que ku ko bëggoon ku ko mënoon am am ko moo tax bu ko Ousmane bu fekkee yàlla Ousmane la ko jagleel dañuy ci sant yàlla wax amin di ñaan yàlla mu yokk te moom it suñ borom def ko député ak ñeneen ak ñeneen ñu topp ci moom parce que rang bi mu nekk soriwul mais ñun li ñuy viser mooy plus de trente députés ci national bi waaw soo amee plus de trente députés ci national bi loolu da daal di gis ne dafa lay daal di jox tu te trouves avec cent trente cinq boo defee plus de trente députés ci nation euh, ci national bi maanaam la la ko may day fekk ci département yi am nga fa loo xam ne nii daanaka bu nekkee 117 wala nangam ak nangam presque gagné nga 85 pour cent yi. mais ndax parti bi daf leen a financé instant bi wala yéen a seen bopp. ñun de nii lañ mel suñu bopp ñoo financé suñu bopp élection yi parce que ay bonne volonté ñoo fi nekk ñi yor dërëm indi ñi yori million indi ñi yori junni indi loolu moo fi nekk voilà la élite patriote avec Mor Gueye. ñii ñoo andi seen ay oto ñii luyo ay oto ñii indi seen i scooter boole ko xaalis ku nekk indi lii mooy élite patriote xaaruñ ci dara xaaruñu Pastef bu amee kuy jox ñun ñoo leen di jox mais pas non à l'inverse. mais cinq millions yi Ousmane Sonko collecté kay wax dëgg yàlla mënoon na leen ci jox. waaw non yooyu dañu ñun dañoo bokk ci ñuy joxe. cinq millions dañoo bokk ci ñuy joxe ba pare daal na leen téye leen daal di joxewaat. joxewaat waa jaajëf jërëjëf.